Pikine la woon ah euh, Mohamed c'est un gars super intelligent hein euh, man awma problème reconnaître euh, les talents des autres maanaam il fonctionne très vite très doué gros travailleur nag gros gros travailleur donc loolu mën nañu ko seede ci moom gros travailleur et voilà donc nous on a partagé trop de choses ensemble su ma ci waroon a wax xanaa damay gàmmu rek Euh, donc loolu laa ci mën a wax di ko ñaanal yàlla donc euh, soxnaam Kati Sarr évidemment xam nañ xamante nañ bu baax euh, ku fonkoon jabaram la ku wegoon jabaram la tamit vraiment bëgg famille am bëgg très famille vraiment depuis ñoom du Thiam xam nga nijaayam la il président du conseil économique et social moom moo créé diplomatie sénégalaise donc ñoom ñoom Doudou Thiam ñoom ñoo leen formé ak baayam baayam commissaire John grand éducateur vraiment man lu bare moom moom ma ko jàngal moom ci boppam moo tax aw ma seen pay aw ma seen pay vraiment loolu laa laa ci mën a wax. waaw ah, jaboot yi lu ñu waroo xam nañ ko ñu ñoom ñëpp dañ leen yar ci diine xam nañ ko ah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lu commissaire John loolu la ñu jàngal ñun ñëpp ah, muñ rek ak ñaanal ko waaw ñaanal ko jaboot gi ñaanal ko loolu daal moom mooy mooy wax ji muñ ak ñaanal ko roy tamit ci ay jikkoom yu baax. loolu laa njaboot ci laa loolu leen di ñaax muy doomu sëram yeeg doomu cheikh ak yëpp ñoom ñëpp c'est ça qu'il faut leur dire que macha allah leur, leur leur papa leur oncle a été un, un grand homme macha allah loolu laa laa ci mën a wax jërëjëf c'est bon. yàlla ko defee daal. ajëfale. salaamaaleykum wa rahmatulah. ah mel nii la ci nit ñi war a tiiree rawatina particulièrement politiciens yi ndax tey xàmmewuñ parti li xam mooy mooy jëmmi doomu aadama ji tey parti feeñ bi ñu xam ne buñ xëccoowee nan dem ak xel tabancee dem ak xol ndax lii lépp yàgg fi la ni mujj. waaw xam nga moom laa doon junj léegi ne am na jàngale bu juddu tey damay jëkk ci li ñuy wax réseaux sociaux ku ne xam na sociaux. mooy li nga xam ni lu social on peut pas de social ba pare nag di wax wax yu teg tegginiwul ci réseaux sociaux kon ñu ngi woowaat nit ñi ñu ngi ñaanaat ci réew mi di ñaan ci koor gi ñu gën ak jaamu yàlla gu rëy gi ñu jaamu yàlla yal na yàlla nangul waaye nag réseaux sociaux yooyu ñu comprendre que ne buñ ne réseaux sociaux du pour saaga buñ ne réseaux sociaux du pour wax wax yu tegginu dëkk bi dëkku orma la dëkk bi dëkku kilifa la dëkk bi dëkk la boo xam dañu am ay valeur kon valeur yooyu ñu ngi ñaan ñëpp nag ñu tënk ci valeur yooyu bu ko defee ñu ñaanal nag njiitu réew mi comme ni ma ko waxee léegi réew mi noo ko bokk waaw te lii nit ñi bokk uh-huh. fokk kenn ku ne la nga ca war a taxaw da nga ko cay taxaw ku ne la nga war a jàpp da nga ci war a jàpp maa ngi seen léegi moo nami moo fr fierté Serigne Mboup maa ngi koy séen muy sama xarit muy koo xam ne ku ma naw la damay wax naa bu baayam juddu woon tey bu baayam dellu si waatoon tey Serigne du defar toogaayam loolu maa ngi koy wax maa ngi séen Serigne kon li ma nawee Serigne dama ko naw ngir loolu c'est un bon citoyen mais c'est un boo xam ne dafa joué paaram ci réew mi sama xarit la nag maa ngi koy wax moom nee na xaritam laa man nee naa xarit sama xarit la te loolu mooy dëgg moom mu ngi koy jëmmal maa ngi koy jëmmal dañu nawloonte kon yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla suturaal moom ku doon laaj réew mi la waaye yàlla joxu ko ko waaye dañu koy ñaanal nag mu ñëw jàppaat ci réew mi ñun ñëpp ñu bokk jàpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñu kontaan gërëm ñëpp sant ñëpp salaamaaleykum. jërëjëf yàlla yàlla na la président maa ngi lay nuyu ma. Ah? président maa ngi lay nuyu. leen di ziare di di jaale eh, Mohamed Boun Abdallah Dionne mm-hmm. xam nga ñoo bokk Serigne Touba. d'abord boo ko Sine Saalum ndax waa Gosaas la mais man dafa nekk sama xarit particulier eh, boo xam ne ni bi may doog di commencé di def commerce boobu mi ngi nekk directeur de l'industrie ci Maguette Diouf moom a njëkk a teg ma ci yoon eh, soo xoolee attestation industrielle boobu tax baaralee taxaw moom moom moo ko defar moom moo ñu ko pousse defar ñu ko et depuis bàyyiwu ñu ànd ak ñun ci liggéey de wax dëgg yàlla nit ku ubbi ko la nit ku baax la nit ku ñeme dëgg la nit ku mën a dimbale nit la daal jëf ji doon jëf ci àdduna nag yàlla na ko fekk yomal xeer. d'accord nga bokkoon ci ñuy laaj réew mi ngir jàpp nga ni doxalin réew mi li fi nekk nekkul bu dëppook bi nga bëgg nga doon laaj pour soppi ko suñu borom dogal li muy dogal tey bi résultat yi wàccee en tant que président Serigne nan nga jàngatee mbir mi. waaw nangu dogal yàlla bëgg ci kontaan ci ndax doomu aadama moom day nangu dogal yàlla nag ñun ñëpp dañoo bëggoon mbir mi soppiku soppiku na. li ki des rek mooy ñi ñu ko dénk pour ñu soppi ñoo ñu soppi ko rek te incha allah yaakaar naa danañ ko soppi. d' accord euh, gis ni euh, euh, premier tour élection jeex ndax amoon nga njort ne premier tour lay di jeex. bon xam nga njort moom njort ku ne ku ne amoon nga njort sax na yaay gagné. Mhm. waaw waaye njort moom njort rek la. Mhm. waaye li ci des mooy li yàlla dogal rek finalité bi ndax loolu lu passé la li ci des moom mooy fexe jiit fexe réew mi ñu jéem a jublu ci liggéey bi nga xam ne nii mooy liggéeyu fexe ba nit ñi jàpp ci dara. Euh, nit ñi bu ñu jàppee ci dara rek xuloo bi ak xeexaay bi ak noonante bi day dañ daal ndax la gën a métti ci àdduna démocratie baax na lépp baax na waaye nit ñi tànk ñi ngi xiif walla ñi ngi euh, am luñ soxla amuñ ko ten wala ñi ngi leen di xañ seen i àq rek day yàq lu bëree bëri. ndax pare nga tey pour fekk si président gis Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour ànd ak moom ci liggéey bi pour ñu xam ne intérêt Sénégal ngeen di ngeen di sàmm. waaw naka jekk ñun dañoo ànd di liggéey ah ñun xam nga ne. mosuñu nekk ci opposition mais mosuñu nekk ci kii suñuy wóllare lañ yàgg yàgg na ñoo def ndax euh, li koy firnde rek daaw li may def fet yi may def ci CCBM moom Ousmane Sonko dafa ñëwoon Mohamed Boun Abdallah Dionne ñëw ñëw fa mhm. kon loolu mooy wane ni ñun du ñuy ay acteur économique du ñuy ay acteur euh, politique mais bu ñuy def une partie ci politique sax du politique boo xam ne dañ ciy xeex ak ko xuloo amul benn njariñ li des moom mooy réew mi Euh, jàppale ko ànd ak moom liggéey ndax mënoo yor maire dëkk mel na Kaolack yor chambre de commerce ba pare te tu es obligé à travailler avec l' état. boo woon message boo koy wax moom président la lay doon. waaw xanaa ñaanal ki fi jógee rek yàlla yóbbu ko àjjana. président boo ko dama ne président message boo koy wax ndax xel du doy lan lay doon lan lay dolli ko. waaw ndegam bis bi bisu bisu dëj la. ñaan rek bàyyi rek ñu ñaan rek ñaanal ko yàlla yàlla. mot li ko liggéeyam message bi ñu ko war a jox sénégalais jox nañ ko ko moom dégg na ko wax na ko ci discours am dégg na message bi alhamdulilah yàlla na nga am jàmm nekk ci bis bisu yàlla na nga am jàmm kon waaye bu doon yoon amin yàlla na ngeen am jàmm yéen tamit jërëngeen nga xam ne senegal nii rek la tëddee lii mooy senegal te quel alfa nii la senegal di mel nii lañ ko fekkoon mag ñu baax ñi nii lañ ko ànde woon Serigne Touba Seydi Hadji mali sama maam Seyna Limaamu maam Boukounta maam Seyna Limaamu ñoom ñëpp nii lañu ñu woon kon loolu tey moo ñëwaat kon nag jàmmi réew mi ak teraanga réew mi ak valeur réew mi su la ñuy woowaat ñëpp ñu ànd ñaanal réew mi nag ngir yàlla def fi jàmm ndax it barki démboo Njaay boo seetee Maroc tremblement de terre am na fa te ay wàll yu nga fa tëdd ay nit yàlla nga fa tëdd kon nag defe naa ne nañu ñaan tey wax jàmm nañu ñaan tey dox jàmm mais nañu ñaan ci bëggante ubbi sunuy xol tey waxante dëgg e ngir yàlla mën a nangu sunuy jaamu kon bu ko defee ñu sant ñëpp gërëm ñëpp ñaanal ñëpp bun abdallah yàlla na xippee aljanna ci barke yonent bi sallallahu wasallam njabootam yàlla ko ñaanal te ko ñaan yàlla nangu ko ah ñu ñaanal leen yen presse aussi ngeen gën a góorgóorlu nag ngeen gën a góorgóorlu seen taxawaay am na solo lépp yéen a nga ca fépp yéen nga fa waaye nag yal na yàlla saxal leen vous êtes très professionnel yal na yàlla jàppale leen ñu ñaanal leen ci eh, koor gi ñu génn ñaanal leen ci julli gi ñu julli ñun ñëpp yal na yàlla defal ñu sutur yàlla defal ñu xéewal salaam